ilaha illallah aousubillah mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw mi leen nuyu leen ziyaar leen jaajëfal di ñaanal suñu taxaaba si ñaan suñu borom yàggal ko fi ba lépp lu mu yéene maam ja suñu borom may ko ci lu kawe njottam tey la ñaare fanu safar kenn ku nekk xam ne ne fan yëpp Baay Faal yi amal liggéey bu am solo ci dëkk bu sell bi di Touba mooy set setal dëkk yi ak gox yi tey ji ñu ngi fii ci Baxiya Touba di fi amal set setal comme nañ ko daan defee ci yeneen gox yi ñu ànd koog Baye Fall yi mboolem Baye Fall boo xamante ne yaa ngi yeewoo ci biir Touba rek yaa ngi fii tey ci Bakhya di setal setal ndax kenn ku nekk xam ne liggéey bi fépp la ñoree waaye fii la gën a ñoree ci Bakhya yi ñi nga xamante ne ñoo fi tëdd ñu ngi leen ñaan suñu borom jéggal leen seen i bàkkaar lépp loo xam ne moom lañ doon defee àdduna kenn ku nekk xam ne ne set setal fii tiyaaba bi nga fi am rek kenn xamee su ko rawatina ñu jëm ci safar tey di ñaareelu fanu safar ñu nekk fi ci Bakhya di ko set setal ñu ànd koog ak mboolem Baye Fall boo xam ne mi ngi nekk fii dañuy daal di ànd suñu cameraman rek daal leen di defar a interview mboolem Baye Fall boo xam ne ak mboolem jullit boo xam ne yaa ngi ci biir baaxee na defar interview ñu fas yéene laaj ni nga xamante ni moom la ñuy dundee liggéey bi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñun mbokki taalibe yi ginnaaw bi ñu sëriñ bi yabalee fii ci Baqiya ngir ñu laabal ko ba mel ni mu bëgg. loolee kat murit yëpp àndandoo nañ ko ci ndigalub sëriñ bi ñu àndandoo ko Cheikh Moudou Falilou Fall xalifab sëñ Moudou Aminata Fall ñuy ñaan nag saa borom kàttanal ko te dooleel ko te yokk ak wéram biir ak biti moom jabati sëñ Moudou Aminata gépp lii nag ñuy wax néew nañ lool ndax jëf ji ëpp solo wax ji waaye eh, buñ nu wax loo mënuñoo ñàkk a wax kem lañ ca xam. muy jëfinu ndigal rek muy jëfe ndigal yi tey bay tere yi ndigal yi nag mooy bu sëriñ bi wootee képp koy ab murit war nga wuy ji ci woote boobee nga xam ne nii kenn wootewu ko ku dul sëriñ Tuubaa mu dal ci loxo Cheikh Rafal murit yi fas yéene koo jëfee loolee dong nag mooy lii murit yi àndandoog jaami yàlla yi te di ko defandoo ak ñoom eh, suñ Moussa Mbar nag. daa wax ne am murit kat lay am bañu murit mooy ndigal lu jogte jëfewu ko mooy am bañam daan ne am bañu sëriñ nag mooy war digle te wul loolu nag ñun murit yi àndandoo nañ pas-pasuk Cheikh mu saambar boobee fas yéene ko te di ko ànd ak moom ak ak murit yëpp di ñaan nag rajo bii nga xam ne moo ñëw ànd ak ñun ci liggéey bi di ñaan wéruk sëriñ bi yàlla na dolleeku amuk sëriñ bi ak murid yi yàlla na dolleeku li sëriñ bi bëgg ba woo ñu ci lii yàlla na ko sëriñ bi kàttanal te dooleel ko te dolliwaat xéewal gi ci biir donga yëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh yaay Fall lañ yëg-yëg bi mooy ñaqal sëñ bi rek fu sëñ bi wootee rek ñu daw fu ñaq bi mën a rote daal ci sëñ bi ñun moom la ñuy wër fépp foo xamante ne sëñ bi soxla nañu daal ñu bàyyi yitte yi rek daal daw fii nag moom tey sëñ bee ko woote nga ko nii benn Baay Faal te te desut ñëpp a ngi ci waar wi ku nekk rek ba nga sa yitte loo jàppoon nag ak loo doon def rek ba ko daw si nag ñu ñaqal sëñ bi kon yàlla nañ sëñ Tuubaa fayal boppam moom rek moo ñu fi indi daal gis nga ko nii mooy bàq fii set na wecc ñi ñaa ngi ci Baay Faal yaa ngi ci kawam murid yaa ngi ci kawam waa yaay Faal yaa ngi ci yëpp a ngi ci kawam di ñaq rek ngir sëñ Tuubaa yàlla nañ sëñ Tuubaa fayal boppam moom xanaa di sant rek moom sëriñ bi bu baax baax tey jiite nag ci wax ji sëriñ tax Mbàkke saa borom doole ko fe yàggal kattanal ko ba naa li mu naanal maamam ju baax mi yàggal ko sagom ànd ko jëwrin maam Sidi Ibrahima Fall Lamp suñu am ni moo di mel di ko ñaanal baax muñ Fall Njaga saa borom doole ko fee yàggal suñu kanam ñu yàgg ñëw jiite lool and koog Baye Fall yi ak mboolem waa kër maam Cheikh Fall ak borom di ko ñaanale noonu ak taalibe yëpp di sant nag bu baax a baax baax ndax ab donga moom wax nañ amul lenn lu dul defal mu def bàyyil mu bàyyi te it wax nañ ne lii rek ko jik waaw nun da lii mooy suñu fierté nu koy waxee waaw nu woote ñu wuy si waaw nun ko bëggee ñu defee ko noonee mbaa nu nu misaalee ko noonee rek waaw ah ñoonu xanaa nu sant rek ndax nun nam borom Tuubaa jéggal nu ngi bàyyi ko ba tubaa Sow parcelle waa kër Baye Ndiaga Diop Baye Fall lañu waaw waaye daara ji ñëpp a bàyyi ko nu at mu jot buñ wootee dañuy ànd ak mbooloo gi ànd ak suñu soxna yu baax yi si jëwrin bi nu ngi koy siyaare baax di Baye Moustapha mu Baye Ndiaga Diop Baye Fall di ko ñaanal wax sa borom kattanal ko baax waaw ci ñoom seen tànk lañ nekk waaw bu ndigal jibee rek yebal nañu te jox nañu ay jumtukaay ngeen ñëw teewale di soññi nag mboolem ñu ñu fekk fii nga xam ne ah wax na ne kat ndimbal la waaye nu ngi ciy sant bu baax sëriñ waaye nan borom tuwaa jéggal ñoo ngi leen di bàyyi loo xel bu baax baax baax kii fi nekkal borom tuwaa te di borom tuwaa ju sotti waaw ñu ngi koy bàyyi xel bu baax baax ci woote gi te jamono jii nii mu bindoo ak ak Baye Fall yi damay faral di wax ne bu wanewul lanay Baye Fall mu ngi sagal Baye yi ñu ngi daaneel fa kàddu yi tey jégalu bu baax a baax. sëñ Fallou waxee rek day loolu jëmmi sëñ Mountakha moom Baye Fall yi mënatuñ koo fay jëmmi sëñ Mountakha daa sagal Baye Fall yi daa dooleel Baye Fall yi waaw waaye nag man li ma si jàng mooy ba képp ki ñuy jiñ ab Baye Fall war ngaa fexe jaayante sa diggante ak xool ba xam sëñ Mountakha nii mu ñu def ndax kenn ku si ne yaa ngi si biir loolee mbaa mbaa déet ndax kat benn Baye Fall bu dëgg la ma gën a sama jëmm nga di ko ndamoo xoolal ba xam Baye Fall yooyu yaa ngi si biiram déet waaw ndax yoonu Baye Fall moom la Cheikh Fall Baye góor doon wax rek aw yoon moom benn koy sàkk dox caa tax ku doxut ku ne da a yoon bi nga koy sàkk dox caa tax ku doxut danaa war a wàcc sant rek maanaam sante rek te xam ne kii ñuy liggéeyal fu mu ñu woo ñu ko kenn ku si ne bu la wooyee liggéey bi mu mënta jàpp moom genn liggéeyam la ndax addi gi ñu siy sàkku def ko si liggéey gi la fu mu ñu woo fu ne rek yite gi mu mënta doon dañ koy bàyyi ndax woote moo gën suñu bu woote waaw ndax moom bu wootee daa war a woote xam nga dañuy naan digle baax na sëñ am di xet dafa ne lu baax baax na de waaye ndigal daa ëpp doole waaye nag rawatina nag ku lay digal dig la mais jëmmi sëñ Muntaxa day sëñ Tuubaa lu baax baax na waaye ndigal daa ëpp doole waaye ki lay digal moo la ku la war a digal moo la digal mi jëmmi sëñ Muntaxa waaw kon dañuy santaat bu baax baax di ko ñaanal mu yàgg fi te wér di wax ne Cheikh Fall ñu dimbali kàttanal ñu ñun lii dongu leen bëgg dégg naa kat basi na si benn waaye mu ne loola waaye jox nga fob di faj say aajo te bu ndigal jotee nga naan ma fekk leen fa bokk si Baye Fall gars yi leen ko loola waaye jox nga fopp di faj say aajo bu ndigal jotee nga naan ma fekk leen xam leen ko ñu ngi tuub bu baax